ak sama conseiller particulier bi nga xam ne moom mooy Yacouba Dianté ñoo ànd ñëw fii euh, njëbbal euh, suñu yeesal suñu euh, taalibe ci sëñ bi ndaxte xamante nañu bi ñu nekkee ci responsabilité syndicale ñu jàppante jàppante yu wóor li ma gën a frappe ci moom mooy bi ñu nekkee ci xat-xat suñu diggante ak état te boobu man xalaatuma woon ne sax dinaa mën a wax ak sëñ Bass Abdou Khadre waxatuma la mu ma toog ak moom mu wax ma ay xalaatam moom moo jël initiative boppam woote fexe ba ñu nu mu jot ma téléphone ne ma man de bu ma sañoon ñu toog man ak yow ñu wax ci mbiru école bi ñu daal di ànd ak suñu délégation ñoo fii waxtaan ak moom mu ne ma ñun man de sëñ bi santuma du ma wax ak yéen dama gis ne man ci réew mi laa bokk gis réew mi dafa toll ci ay jafe-jafe ma jéem man ici aussi ma indi sama Euh, contribution pour ñu mën a trouver solution lan mooy seen problème ñuy expliquer ko situation bi yëpp mu tëddee kan ak kan nga yaakaar ne moom laa war a woo ci gouvernement bi pour ñu waxtaan ak yéen pour solution am ñu limal ko ñoo xam ne dafa waxtaan ak dafa war a waxtaan ak ñoom mu def lu mu war a def ci ëllëg si mu woote ñu ñëwaat ma ne waxtaan naa ak diw ak diw ak diw waaye diw de tontom doyuma léegi nag comme man maa leen wóolu woon pour wax ak yéen ngeen. xam léegi loo leen di def bu ñu demee ba ci biir euh, sëñ Sidi Maxtaar moom également wóoluñu ñu jóge fii dem Touba bu ñu demee kër sëñ bi lañ daloon fekk sëñ euh, Sidi Maxtaar dafa fàttu woon bi ñu waxtaan ak moom mu ne bii yoon nag sëñ bi ci boppam moo ma wóolu lii ak lii la ma sant ñu waxtaan ak moom ci biir këram la ñu trouvé solution ñu daal di lever mot booba léegi nag ñoo ngi jàppante bu lu wér bi ñu génnee ci loolu man ma pare samay responsabilité ma nekk ci biir dëkk bi mais daanaka sénégalais yu may rencontré dañ may naan yow léegi ci lan nga jàpp ñu bëri gis ne dama war a continuer di di servir sénégalais yi ba tax na ñu dem ba ñu mettre en place suñu mouvement bi nga xam ne mooy mouvement pour une citoyenneté engagée ànd nawle bokk ci Yewwi Askan Wi bi ñu waxtaanee suñu biir. ñu ne ñun kat am na loo xam ne dox na suñu diggante ak sëñ bi mënuñoo yëkkati dara ci senegal fii te ñëwuñu waxtaan ak sëñ bi laaj ko ci ay xalaatam sakku ñaan ci moom bu boobaa ñu jóg démb jéem a continuer la def lu ñuy def loolu nag moo tax ñu ñëw fii sëñ bi suñu sëriñ la suñu xarit la te won na won nañu ko it ba tax na tey jii moo tax ñu ñëw fii sakku ci moom ñaan euh, ziyaare ko sakku ci moom ñaan. te également mu jox ñu ndigal ba tax na euh, bëgg nañu sénégalais yi xam suñu diggante ak sëñ bi euh, bëgg nañu également sénégalais yi xam ne lépp loo xam ne euh, war nañ ko def ñun en tout cas daal dënk nañ ko suñu bopp te moom moom également nangu na ndénkaane bi ba tax na tey jii lépp loo xam ne def nañ ko ñu xam ne ci ndigalu sëñ bi lañ koy def te lépp loo xam ne aussi moom ay xalaatam la dinañu ko wax te également ñu jëm ci jox ci biir loolu nag ñoo ngi sant bu wér sëñ bu soobe parce que bu lii amee tey jii malgré le fait que ñun amoon nañu relation ak moom mais ci moom lañ jaar te moom moo doxal yëpp également te sëñ bi nee na nañu gën a jàppante ak moom donc loolu daal moo nekkoon suñu suñuy tànk di ko gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla mu bàyyi ko mu yàgg lool suñu kanam di ñu won yoon bi en tout cas daal dënk nañ ko suñu bopp nangu nañ dénkaane bi loolu dal nañ suñu xel